seen secret euh, ci audition bi euh, buñ doon dañ ko laaj mu ne moom bëgg na bëgg na yeggale mébétu président de la république waaye tamit bu dul moom dina tënku ci li président wax ñu laaj Aly Ngouille Aly Ngouille ne moom bëgg na waaye moom buñ ko tànnul bu ñu tànnee euh, Ablaye Daouda dina ko jàppale waaye bu ñu tànnee Amadou Ba ah da ngeen di def carte sur table ngeen waxtaan ba mu leer Euh, Mame Boye Diao moom wax na li ko naqar yëpp euh, Ablaye Diouf saar bon xaw ma lu mu wax exactement boobu dafa ma rëcc dama ko fàttee laaj euh, alors Ablaye Daouda moom mu ne moom moom la bëgg mu doon wax lan moo tax mais bu dee tànn nañ la Ablaye Daouda dafa mel ni moom du ci topp waaye bu ñu tànnoon Aly Ngouille dina jàppale ki nga xam ne. li nga ci xam ne man xaw ma ko ci moom mooy Aly Ngouille gis nga li nga li nga fekkee woo fekkee nga audition. non fekkee ah xaw ma ñoom li ñuy wax ma li nga ci xam. Ah. honnêtement man xaw après yow nga ne amuloo problème de personne nga delloowaat lépp. c'est ça la vérité président de la république xam nga Maïmouna quand je dis awma problème de personne mën na la jaaxal xëy na da ngay da ngay dégg yeneen. pour man sax c'est risqué loolu. waaw na awma ko. ah c'est ça la vérité. pourquoi pourquoi may am problème de personne pourquoi. ñoom am nañu fulla ne ñoom la ñu bëgg mu doon non non ñoom non attends que ñoom non xam nga position man bi ma toogee position bi ma nekkee fi ma nekk ni tembe tembe dafa am loo xam ne àndul ak des déclarations intempestives daf ci àndul am na loo xam ne bu ma koy def la primeur président de la république rek moo koy am keneen du ko am alors même si j'étais pas chef du gouvernement séq naag moom loo xamante ni su ma bëggee def dara am naag fulla ak fayda ju day ni dina dem ba ci moom ne ko lii ak lii bëgg naa ko def loo ci xalaat